À la une de l'actualité, Grand Magal de Touba célébré ce jeudi. Euh, les séances de Zia rythment les quotidiens ou le quotidien des talibés dans la capitale du mouridisme. La grande mosquée, point de convergence de nombreux fidèles. Grand Magal de Touba qui a également une dimension internationale avec un impact sur la diplomatie religieuse de par la présence de plusieurs personnalités religieuses et des figures influentes. Mais pour Ali Touba, des accidents de circulation sont enregistrés sur les routes. Déjà, 20 par la brigade des sapeurs-pompiers, un nombre élevé comparé à l'année dernière, l'utilisation des motos listées parmi les causes de ces accidents. Grand Magal de Touba a célébré ce septembre à Touba les séances de Zia rythment le quotidien des talibés. La grande mosquée et le pôle d'attraction des fidèles qui se font un point d'honneur et de ferveur de visiter le mausolée de Serigne Touba Ahmadou Moustapha Dia. Tous les chemins mènent à la mosquée de Touba, le principal pôle d'attraction des fidèles qui sont comme attirés par un aimant irrésistible. Effectuer tous ces ziarras en bon talibé mouride est un must pour cet homme, une manière de raffermir le lien sentimental et spirituel fondamental qui le lie à qui est de surcroît son homonyme, Bamba Konaté. Oui, exactement, oui. Oui, bon, je l'ai pas fait exactement comme je le voulais, quoi. Parce que y a eu trop de monde aujourd'hui et j'ai pas eu le temps de, de faire tous les ziar Comment appeler comment Bamba Konaté. Seigne Touba est mon homonyme. Oui. il faut demander à mon père. C'est qui m'a donné le nom. Oui. J'en suis fier, oui. voyage et un trajet dakar effectué dans des conditions pénibles, il affiche le sourire devant l'édifice imposant et hypnotisant de la grande mosquée de Touba. Oui, c'était difficile parce que hier on a fait heures, heures de route. Il y avait, il beaucoup de euh, qui bouchons. on a fait 5 rondes la nuit en plus. Et, oui, difficile, oui. on est, bien arrivé, Ce jeune, quant à lui, vient tout juste de sortir de la folle bousculade pour visiter le mausolée du Cheikh Ahmadou Bamba. Il est satisfait. man maa ngi jógee def ci Dakar. Dakar laa jógee quoi. waaw waaw jaar naa pare alhamdulilah. na la saa métti woon na non ak saa jaar na ko quoi. Ah. waaw métti na ma jaar na ko quoi. borom bés bi dafa woote. nga war sant daal sant daal. comme ni mu ko waxee sant la ko quoi ko waxee. Ainsi va le quotidien des talibés à Touba entre ziar, bousculade, bain de foule, visite de la mosquée et autres curiosités qu'offre Touba les fidèles s'en donne à cœur joie. Amadou Moustapha Dien, le grand Magal de Touba, qui est donc célébré ce septembre. Magal de Touba qui a également une dimension internationale et son impact sur la diplomatie religieuse sous-régionale euh, donc consacré par la présence d'éminentes personnalités religieuses et de figures influentes de l'islam euh, ouest-africain, tels que l'imam Diko du Mali, Saline Cheikh Bara Falilumbake, consul du euh, Sénégal en Arabie Saoudite et chargé des relations pour Kamadou Moustapha Dieng. Cette année, on a euh, donc, euh, donc accentué sur, euh, sur le, euh, sous-région. Donc alors, euh, donc, le maximum, les autorités maximum des, de la Côte d'Ivoire, donc de Koussim, sont là, et les autorités du Mali, donc, donc représentées par le président euh, du Conseil supérieur islamique actuel et son prédécesseur, mm -hmm. Imam Diko, mhm. et le président du Conseil supérieur euh, islamique du Burkina Faso et son adjoint. Et aussi le, le président du Conseil supérieur islamique de, de, bissau et des imams de, la Gambie. Mhm. Donc cela montre que donc on doit partager et divulguer mhm. le de Cheikh Mbamba euh, qui a Euh, fait donc euh, qui a donc donc euh, œuvré que la paix règne partout dans le monde. Mm-hmm. Et nous, si, on a une référence mm-hmm. telle que Cheikh Bamba, mm-hmm. on doit euh, donc on doit divulguer ces donc pour vraiment pour en tirer des, enseignements que, au lieu de chercher ces donc ailleurs. dans d'autres euh, juridiques et personnalités mondiales. Mm-hmm. mais pourquoi pas donc euh, euh, donc se référer. Mm-hmm. entièrement. Mm-hmm. Au, au, de Cheikh Bamba. La raison pour laquelle nous, nous encourageons les, les, les écrivains vraiment, donc, donc, à travers donc, euh, euh, leur fondation ou l'association, mm -hmm. pour, pour, à donc, écrire dans toutes les langues pour vraiment euh, partager les enseignements de, de, de Bamba. Et les écrivains qui ont participé mhm. à, donc, l'exposition mm -hmm. euh, des de, donc la, la, la, semaine dernière. Donc, euh, euh donc donne une longue vie à Cheikh Moundou Khambaké pour qu'il continue donc ça, à, à, réaliser mhm. l'ouverture. Vous venez de suivre les précisions de Serine Cheikh Bara Falilou Mbaké, euh, chargé des relations pour la stabilité de la sous-région. Il revenait donc sur la dimension internationale du Grand Magal avec un impact sur la diplomatie religieuse de par la présence de plusieurs personnalités religieuses et des figures influentes. Euh, de nombreux fidèles euh, donc euh, à Touba, mais pour rallier la cité religieuse, des accidents de circulation sont enregistrés sur les routes. Gambie à Touba, un nombre élevé a à l'année dernière à pareille période, selon le chargé de la communication de la Compagnie nationale les usagers de la route à plus de prudence. est au micro de Toutissé. Partout où il euh, risque a un risque nous avons mis en, tout cas un dispositif qui permet rapidement d'intervenir dans les meilleurs délais. Et aujourd'hui, ce qui est très important, euh, c'est les motos que nous avons amenées. Dans un contexte pareil, circuler à Touba devient très difficile. Ils sont équipés de secours à victimes et qui peuvent également procéder à l'extinction, par exemple, d'un feu de véhicule. Aujourd'hui, nous sommes dans un contexte euh, hivernal. il a plu. En amont de la pluie, nous avions amené 40, 50 ce qui nous avait permis d'évacuer tous les points d'eau. Avec la pluie de ce matin, nous avons amené section de pompage avec des moyens renforcés. Ces sections sont déployées dans les points de pompage et aujourd'hui, le pompage est en train de se faire et nous espérons d'ici la tombée de la nuit, nous aurons fini de libérer les sites. Et depuis le nous avons sauvé 488 victimes. Malheureusement, nous avons enregistré le décès de 20 personnes. Les 18 sont liés aux accidents. Euh, le 19e, euh, il est mort par électrocution. Et puis le dernier, c'est un malade qui a succombé. Aujourd'hui, quand on un bilan comparatif, à pareille époque, J-1 l'année dernière, nous n'avions enregistré que 3 corps sans vie, 3 cas de décès. Aujourd'hui, on est à 20. Cela pour être plus chaud que l'année dernière, plus chaud que l'année dernière cette Maintenant, nous en profitons pour faire un, une sensibilisation. On est dans un contexte hivernal. La chaussée est glissante, la visibilité est réduite. C'est dans ce cadre que nous invitons les usagers, les transporteurs, en tout cas les motocyclettes, hein, d'être prudents dans la route. Déjà, donc, 20 corps sans vie euh, enregistrés par la brigade des sapeurs-pompiers à Touba, euh, selon les précisions du lieutenant-colonel euh, Chertine, qui appelle les usagers de la route à plus de prudence. Les motos, donc, occasionnent également beaucoup d'accidents de la circulation pendant la période du Magal, mais cela n'empêche pas aux jeunes de voyager avec ces deux roues au risque de leur vie. C'est le constat fait par Adam Andiaï. la circulation Sénégal. Ils sont nombreux, ces jeunes, dont la tranche d'âge varie entre 25 à 30 ans, à jeter leur dévolu sur les deux roues pour pouvoir effectuer ce long voyage entre Dakar et Touba. C'est le cas du jeune Ibrahima Khan, âgé de 30 ans, habitant le quartier Guédiawaye. Il a quitté 6 heures du matin avec un groupe de copains pour arriver aux environs de 10 heures à Diourbel. Son ami quant à lui, déclare qu'il préfère laisser son véhicule à Dakar et voyager avec sa moto. Selon lui, c'est moins écouté et c'est rapide. La plupart de ces jeunes préfèrent voyager ensemble pour s'entraider mais aussi faire bloc en cas d'agression d'un des leurs. Si certains jeunes préfèrent ce moyen de locomotion, d'autres plus âgés se rabattent sur les véhicules de transport en commun. C'est le cas de Bala Diop un fidèle âgé de 59 ans habitant Dakar. parce que vraiment yoon bi bi ñu def pare Dakar di ñëw taw ndox mu bëri ci yoon bi vraiment tout le moyen. nous avons bravé la pluie et nous rendons vibrant hommage aux chauffeurs lorsqu'on quittait Dakar il pleuvait beaucoup mais les chauffeurs sont très braves ils ont tout fait. pour nous amener à Touba. Nous allons nous baigner et se reposer en attendant le jour J pour pouvoir formuler des prières à la grande mosquée et retourner sur Dakar. La grande mosquée est le lieu de convergence des milliers de talibés mourides qui célèbrent ce jeudi le départ en exil de Cheikh Ahmadou Bamba. Touba Sud FM, Adama Ndiaye. Adama Ndiaye, les motos qui occasionnent donc beaucoup d'accidents de la circulation durant la période du Grand Magal. Les pannes mécaniques sont très fréquentes sur l'axe Dakar-Thiès, Rambol, surtout en cette période hivernale. Les automobilistes du Réva s'offrent gratuitement leur service avec un quartier général à l'entrée de la cité Veille de Magal 2022, routier Dakar-Thiès très convoité par les automobilistes qui roulent au ralenti, occasionnant du coup des pannes. Pour l'instant, on a dépanné 70 véhicules, entre Kies, Khombal jusqu'à Bambay. Ah. Les types de PAM sont souvent des chauffages, partout sur l'autoroute à péage et sur la route nationale. Ces embouteillages créent des pannes d'embrayage, des le chemin de Touba, des volontaires de l'automobile offrent gratuitement leurs services. Ousmane Sow Malaw est le président de l'antenne régionale Revas de Thiès. J'ai mobilisé 70 des mécaniciens, des tauliers, des électriciens, tout ce qui touche le secteur automobile sont là pour faire des dépannages gratuits sans demander aucun chou à personne. Le dépannage gratuit en période hivernale, les difficultés ne manquent pas. Si les pluies tombées favorisent bien des pannes, pour ces pannes, puisque quelqu'un qui roule de Dakar à Kies, les roulements sont chauffés, les croix de distribution, bien les croix de dynamo sont chauffées, vient vers Kies. Bon, en venant aussi, il se trouve la pluie ici à Kies. L'eau peut les pneus, faire refroidir subitement les roulements. Les les croix peuvent se coupé. Vraiment, sur la pluie là, ça complique vraiment les choses. De l'appel du président Malo Sow. Notre appui le plus solide et le plus rapide, c'est des véhicules de dépannage. Nous, à on a vraiment des difficultés pour aller faire nos dépannages correctement, puisque nous n'avons pas encore eu de véhicules pour se déplacer. Je demande aux autorités qui soient de nous aider pour avoir un véhicule pour, le, euh, pour se Les camarades de Cheikh Diankra entendent ainsi accompagner les automobilistes en partance pour Touba jusqu'au lendemain Sénégal Babacar Ndaw Thiès Sud FM Sud International. Ce jeudi 15 septembre s'ouvre dans la ville de Samarkand euh, en Ouzbékistan e réunion du Conseil des chefs d'État de coopération de Shanghai,

responsabilité de l'ONU, quatre puissances nucléaires encore, des États qui comptent parmi les plus gros producteurs et consommateurs d'énergie. Euh, c'est une organisation à vocation politique, économique et même sécuritaire qui est une sorte de club, de clubs dominés par des États soucieux de contrebalancer l'influence occidentale, analyse euh, donc de plusieurs experts. Cette année, euh, l'OCS intervient alors que l'Occident est défié par la Russie, la Chine et de, nombreux autres, euh, de nombreuses autres puissances qui feront présenter dans la ville bleue un des enjeux de la réunion sera donc de mettre en scène ce rapport de force. À 7h0 minutes, nous accueillons Elage Malik Niaï pour la version Wolof de jëf mbokk déglukat yi asalaamaaleykum juróom-ñaari waxtu moom mooy ko jot suba si li gën a fës xibaar fas nañ ko faram-fàccee nañu yéen tamit li gën a yaatu ci jëm ci màggal Tuubaa gi xam te ji nag lañ koy amal 18 safar yam ak fukki fan ak juróom euh, ci ñëpp nag ñu ngi wax Hayla Touba jubal Touba dëkk bu sell ba nag euh, nit ñu bare bare ñu fa teew waaye tamit li ci ëpp sol tey ji nag bu su tey moom mooy ay bernde tamit jàng ay xasaayit euh, waaye ñu ngi dem ci ziar ci bërëb bi rawatina nag grande mosquée ñuy jàpp nañ ci ànd sax ak kii di Amadou nga xam ne sax moom la formation jëm ci wàllu woowu rawatina tamit dimension internationale bu màggal màggal gi ak tamit wàllu accident yi nga xam ne meeku nañ ko bañ yëf yi nag dooree ba léegi fukki ñaar fukki ñoo ci seen bakkan nañ ci ànd ak kii di sapeur pompier waaye tamit moto yi dem ñoo koy faral di indi nañ ci déglu sax kii di Adama Ndiaye Assane Thioune ci wàllu xarala gi. El wax ci wàllu màggal Touba gi nga xam te ji nag lañ koy amal yem ak fukki fan ak juróom ci weeru septembre ci bi amee lay eh, lañ koy amal ñooy nag bés bi nga xam ne fi la sëñ bi tel bi jógee woon doon dem fële ca Gabon waaye li ci gën a fës tey nag bokk na ci ay euh, ziar jàng alxuraan ak tamit ay ay xasida ak tamit dem ci ziare ci rawate nag ci xabru yi waaye tamit ca grande mosquée ba ñuy jàpp ne kat loolu moo ci gën a fës ci bésub tey bi dañ ca ànd ak kii di Amadou Moustapha Diam Touba mooy célébé yoonu bépp taalibe yu bawoo fu nekk ci biir réew ak bitim réew taalibe yépp dañuy jug wutali jumaa ja ngir dem siyaare ji mu mel nii jumaa joojule dafa am luy xëcc xolu taalibe yi ci moom te foo mën a nekk boo duggee ak sa bëgg-bëgg yépp mooy teg sa tànk ci jumaa joojule waa jile moom def na ay ziyaaram donte sax matalul lépp waaye dégg ne ziyaar yi nangu na moom sax Serigne Bamba Konaté lañ ko dippee ziyaar naa mais metti na trop parce que dafa bëri nit man dama pour éviter euh, kii na suba mais naka tey nu mu bëree nit déjà lu ma lu ma bëggoon def yëpp mujjee moo ko def sax quoi. Ah. oui. mais quand même siyaare waaw siyaare naa waaw siyaare naa. siyaare naa mais sëñ bu mag bi moom jotuma ko siyaar. sa waaw jotu ma ko mais nag yéen baa ngi donte sax am na ay jafe ci yoon bi laata muy ñëw lu ni mel terewul bu mu gisee jumaa ji rek dafa mel ni coonom yëpp dafa wàcc. waaw bi yoon bi moom métti na trop déjà parce que démb rek déjà def nañ cinq heures de temps si doo doo kii quoi doo daw quoi. Uh-huh. oui dafa mel ni ñëpp dañ ko déggoo rek ñëwandoo démb quoi. ok alors que màggal bi des na deux jours. mbégte moom la ak kanam gu naay googu it la ñu nemmeeku ci xale bu góor bi nga xam ne moom mi ngi doog a génn ci buuxante bu tar bu metti bi nga xam ne moo nekk ci bërëbu Serigne Touba bile. foo jóge non man maa ngi jógee Dakar. Uh-huh. Dakar laa jógee quoi. waaw waaw jaar naa pare alhamdulilah. na la saa métti woon na wala. non ak saa alhamdulilah jaar na ko quoi. waaw métti na jaar na ko quoi. borom bés bi dafa woote nga a ñëw ko la ko quoi nile la xëy ak ngontu. taalibe yi di doxe fii ci Touba diggante ziare yi buuxante yi dem nemmeeku ji exposition yi di seetaan li xew ci mbedd ak it seetaan li xew ci mbedd jub. ak it di seetaan li xew ci mbedd yi wër jumaa ji taalibe bu nekk bëgg nga teg sa tànk foofule ngir firndeel ne ñëwoon nga Touba dëgg-dëgg ci màggal gi fi Touba ngir rajo Sud FM. Amadou Moustapha Niass dimension internationale fi bu ah, ko ci mel ni bu Mali ak tamit kii di Serigne Cheikhou Bara Falilou Mbacké nekk conseil général bu en Arabie de la stabilité eh, ci sous région bi ñu déglu commune ci ay ci micro Amadou Moustapha Diagne. alhamdulilah waaw màggal bi moom kenn ku ne xam na ne. Euh, am na dimension yu bari yu mu am dimension spirituelle bi sax moo ci ëpp importance ren defe naa ne euh, sous région bi ñoom ñoo ëpp euh, ci ay kilifa mhm. kilifa diine yu mag nag ay président conseil supérieur ñu wër yëpp mën nañ ne ñoom teew nañ fi ak ay délégation kii officiel yu bari ñu mhm. jóge à l'étranger mhm. kon lépp day wane rek ne maanaam vision bi nga xamante bi moom la Cheikh Mouhamadou Mountakha am ci ubbi ak ci yaatal donc ñu di ko ci doxal euh, loolu lu am solo loo xamante ne bii ñu ngi ñaan yàlla mu mu mu bàyyi ko fi. ba ci kanam kanam kanam ba mu gën a mën a yeggale yéen yi ñu nga xam ne moom la am. Sëñ Tuubaa jàmm la woote ci la nekk moom la jàngale. moom la xamle. ba tax na defe naa ne euh, kon euh, bu fekkente bii. Euh, noonu la demee ñun li ñu war mooy di gën a tosaare ay jàngaleem ci àddina bi euh, ngir jàmm ji gën a tasaaroo jàmm ji gën a euh, gën a law ci àddina ndax defe naa ne bu ñuy jàng yeneen borom xam-xam yi ak ñoo xam ne sax doonte bokkuñ diine ak bokkuñ culture di jële ci ñoom kon defe naa nag rawatina bu ñu amee ñun référence boo xamante ne bi mel ne Cheikh Ahmadou Bamba nga xamante ne bi maanaam bari na wàll yu bari yoo xamante ni fi mu ci àgg ak li mu ci def. Mhm. kenn àggu ci ko loolu kon lu am solo la loo xamante ne bii dañoo war a fexe ba di gën a dundal loolu. Mhm. ci wàllu gan ñi ngi naan euh, imam di ko moom bu Mali ñëw na fi. waaw. Mhm. ak ñeneen ak ñeneen. waaw waaw waaw imam di ko moom ñëw na ak. président conseil supérieur islamique bi actuellement ndax moom moo ko nekkoon. Uh-huh. mais léegi eh, nekkatu ko ki ki mu remplacé ñëw na. Uh-huh. Euh, donc euh, am nañu délégation des COSIM conseil supérieur des des et et des affaires de la uh-huh. Côte d'Ivoire ñëw na donc président conseil supérieur bu Burkina Faso ñëw na. donc euh, président conseil supérieur bu Guinée Bissau ñëw na ay imam yu jógee Gambie donc wane na ne. Hmm. kon defe naa ne maanaam loolu kon sous région bi ñëpp ñoo fi dajee ñi nga xam ne dina ji sous région bi tey daje nañ ko. Hmm. ñu des ci wàllu màggal geeg tamit lu jëm ci yàq da nga xam ne day am lu toll ci ñaar fukki ñoo sax ñàkk gom seen bakkan loolu nag brigade nationale des sapeurs pompiers ñoo ko xamle lieutenant colonel Cheikh moom nawet ci micro tuuti sëy indi nañu ay oto yu yees yoo xam ne ay ambulance ngi ci ay oto yu fay lakka ngi ci waaye itam ay moto yoo xam ne nii mën nañoo dem def intervention ñi ngi ci ci kaw loolu station de pompage boo xam ne dañoo ne ci jamonoy nawet indi nañ ay nit ñoo xam ne pompage rek mooy doon seen liggéey jox leen ay jumtukaay yoo xam ne comme bu tawee comme ci suba ñi ngi ci terrain bi commencé di pomper euh, dispositif boobu moo nu may kat ñu mën a ndar kepp Touba fépp foo xam ne nii yoon la nit mën faa jógee ngir ñëw Touba yàlla defal nañu sutura def nañ fa ay jumtukaay def fa ay sapeur ba ñu mën a intervenir biir Touba tamit. man mën nañu jàpp ni fépp foo xam ne ay nit dañ fay fréquenté fépp foo xam ne mën na indi jëye def nañ fay jumtukaay daf fay sapeur pompier ba fii may wax ak yow dispositif bi mu ngi fonctionné ñoo ngi ciy sant yàlla alhamdulilah bu ñuy bu ñuy xayma tey bilan euh, à mi parcours parce que jeexagul euh, def nañu lu tolloog téeméeri intervention ak juróom-ñaar fukk ak benn ci kaw loolu sauvé nañu ñeenti téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñaar am na ñaar fukki nit ñoo xam ne ñàkk nañ seen bakkan fukki ak juróom-ñett ci l'accident la jóge kenn ki courant commence kenn ki dafa feebar jaare foofu ñàkk bakkanam loolu daf ñuy may ñu wax nit ñi ne leen dañoo nekk ci benn contexte boo xam ne dafa particulier muy jamono yu nawet tali bi dafa ri tax booy sa gis-gis dafay tuuti moo tax ñuy taxaw foofu di sensibiliser képp koo xam ne da ngay utiliser tali bi moo xam transporteur yi moo xam moto jakarta yi moo xam sax particulier yi ak nit ñi nga xam ne dañuy jéggi yi ñu leen ñi ñaan ñu def ndànk chauffeur si ki ci sonn jarul yàkkamti ay nelaw kenn mënu koo prévenir da ngay da ngay da ngay da ngay gaare nelaw ba jotaat sa bopp su ko defee nga door a jëlaat yoon bi agsi ci jàmm def sa ci ci wàllu ak tamit ci wàllu màggal gi ñu jàpp ne kat euh, lu sax ñu ci bëri nag si nag yi wàllu moto yi ñoom ñoo koy faral di waral ci màggal Tuubaa gi nag ñu bëri dañuy euh, fexe nag teg oto yi daal di taal moto ndaxte mooy gën a gaaw wàllu circulation bi dañ ci kii di Adama Ndiaye accident yi nga xamante ne laal na ay moto bari na lool ci màggalu Tuuba ay ndaw lañ seen at ñaar fukki at ak juróom la jàpp fanweeri at ñoom li ñu taamu mooy moto yi ngir ñëw Ibrahima kan dëkk Géejawaay ci la bokk am fanweeri at moom nag nee na juróom benni waxtu ci suba la jóge Ndakaaru waaye mu ngi yegg ci fii giir ak fukki waxtu Abdou Ba moom ñaar fukki at ak juróom la am moom dafa wàcc otoom ndakaaru ne bëgg-bëggam mooy dawal motoom ngir màggal si li ko waral nee na moo gën a yomb te moo gën a gaaw ndaw ñu bari nag dañuy préféré defab groupe daadi ñëw Tuuba li ni mel boo gisee ñu koy def mooy ku ci paan sa moroom mën laa xeetli te it bu agression amee ñoom ñu mën a jéngu bu fekkee ne ndaw ñi ñaari ruu yi la ñu gën a bëgg am na yenn mag ya nga xamante ne ñoom woto yi leen taamu ku ci mel ni Balla Diop juróom fukki at ak juróom-ñeent la jóge ndakaaru moom nag dinu net li coono bi nga xamante ne am na ko ci yoon wi. parce que vraiment vraiment mais chauffeur yi càmbal la ñu def leen tout tout le moyen ñëw Touba mais yoon wi métti na. dalu di dara jot ñu dem jumaa ji siyaare def suñu ñaan ñu doot Dakar ci kàttanu yàlla jumaa ji nag mooy bërëb bi nga xamante ni fa la taalibe yi ëpp ci arxemes ak tey jii dañuy màggal ngir fàttaliku bés bi nga xamante ne la Cheikhul Xadim jóge fii liggéeyale suñu boroom Diourbel Sud FM Adama Ndiaye. Adama Ndiaye ku wax wala tamit di wax tamit euh, panne yi faral di nemmeek ay panne mécanique yoo xam ne nag dafay faral di bëri lool rawatina nag ci diggante Dakar ak Thiès ak Xombol waaye tamit ci waxtu bi nga xamul ne nag moo tax automobilistes yi nag ci Revache ñoom jóg taxaw teem ngir rek jàppale leen dañ ci ànd ak kii di Babacar Ndaw wàccaayu ko magal Touba 2022 yoon yi xat lool muy si autoroute bi ba si route nationale numéro 2 bi Thiès di sëlëbe yoon oto yu paan bare na oto yu paan moom te diggante démb ak tey rek dépanné gum nañu 70 véhicules pare embrayage changé fi disque ay cardan bo ak chauffage Prévas ni mu koy defalee at bu jot di leen taxaw si yoon bi Ousmane Sow Malaw mooy njiitalu Prévas si région bu Thiès ren moom defe naa li ñëw fii moom ci EDK bi mot nañ 70 personnes waa mécanicien électricien même tôlier mi ngi fi soo matériel bële matériel tôlier ordinateur indi lépp loo xam ne war na daal jàppal li nga xam ne mooy artisan mi nga xam artisan automobile bi nga xam mooy liggéey ñoom daal la ñu dajale fii fii ci EDK bi pour def liggéey bu sell bi di liggéeyal ki nga xam ne nag moo liggéeyaloon askanu àdduna bi yëpp waxuma laa nag mu liggéeyal Sénégal borom Touba. Ousmane Sow di si yokk nag ne rek ji nawet la tombeel ba tax na ñoom sax taw bi bàyyiwu leen taw ba macha allah ñu bett mais nag bi ñëw gis nañu xiin bi bett nañu ba daaneel na sunu ñaari tànt yëpp benn bi nekkoon comme benn bi ci des dañ ko defoon taw bi yëpp ak ngelaw li daaneel na ko man mi dox yeen damaa tooyoon xepp suba bëgg woon matériel jàmbur xam ñoo nekk fii dara am ci dara dara yàqu ci ñu tegu ci kaw tali bi di leen ñaan bu kenn wàcc ñooñu pa Cheikh Diankha yi jàpp nag ne nguur gi ak kilifa yi bu leen gënee teg loxo ñu jël prévention la ñuy def te prévention kuy def prévention pour kan la prévention pour état la pour askan wi la askan wi état moo leen couvrir état mooy seen lépp kon boog dañoo bëgg état aussi gestuwaat ñu aussi ci li nga xam ne mooy moyen de transport xam ne moom mooy jàppale askan wi maa xam tey ndax tey bu ñu fekk am na ko paan fu sori ab oto dem fekk fa mu nekk. li ñu tuddee dépannage gratuit képp ku sa oto panne si yoonu ba tubaab yi ñu defaral la ko sotu fay dërëm Reva fas yéene ko wéyal ba ëllëgu ba màggal 2022. Babacar Ndaw Thiès FM. Babacar ci wàllu xibaar ba tey ginnaaw fukki simili ak euh, ñett boo toftalu ci 7 wax euh, ci nag béykat yi nekk ci région bu Fatick nag ñoom wax na ne jafe-jafe yi jànkoonteel waaye bëgg nañ tamit ku leen euh, dimbale ci li nga xam moo nekk njëgu nag céréales yi ak tamit wàllu gerte gi ci li nga xam ne kat moom moo jëm ci wàllu production bi ñu ngi doon dalal nag délégation bu CNCR bi amal tournée national ci ay fan yi ñu génn rek na ci biir Sénégal. Nazirou Sall mooy président CNCR ñu déglu ko ci micro Ngoor Sarr. lu ñu mun jàpp si suñu ndaje Fatick ma bokk na si am nañu yaakaar si campagne bi parce que taw am na mun na am ñu am récolte yu baax mais loolu tekkiwul amuñu jafe-jafe yu ñu yu ñu gis lim nañu si jafe-jafe boo xam ni mooy am jumtuwaay bu ñuy liggéeyi si tool yi ñett at yi lu ñu koy jotee xaw na jafe loolu nag ñoom lu ñu yaakaar lu ko indi mooy change dañu changé pexe bu nekkoon fii nekk bool nañu si effectivement mbirum jiw. ak mbirum séerité engrais beneen lu ñu mënu jàpp mooy ñoom ñëpp yaakaar nañu suñu demee ba góob lu fi nekk si tool yi ñu am ay prix yu baax parce que lu ñu jënd reen lu ñu jënd lépp dafa cher engrais bi cher na semence bi cher na équipement yi cher na même lu ñuy dundee dafa cher lool nag sooy fixer prix da nga war tenir compte dañuy dañuy ñaan ñu tenir compte si lool loolu lay moo gën génn effectivement si suñu waxtaan si mbirum seer seer bi boole nañu si si mbirum sàmm sàmm bi effectivement ñu ngi gis euh, temps yi jur gi dañu commencé am ay maladie ñu ñu gaaw si vaccination pour mun maîtriser situation yooyu beneen bi li ñuy posé mooy jumtuwaay pour mun dajalee ñax nga mun ko denc yii bokk na lu génn si sunu jotaay tey bi pour petit matériel bi lu ñu ñaan mooy ñu xoolaat ko nee nañu depuis 2019 ba léegi réglé wul ñu xoolaat mbir yooyu lu ñu fexe ba réglé ko effectivement si région de Fatick réew mi mu ngi moom boppam su ñu amee lu ñuy lekk lu bare te lu ñuy lekk mu jokee su ñun alternative engrais yi ñaar ñaar am na nañu si niveau international engrais dafa am jafe-jafe mais gis nañu si ñaari bunt bunt bu njëkk bi mooy fexe ba ñu tos ñu koy utiliser mënul wéy di jënd saak engrais 35 000 francs loolu mënul wéy même nguur gi dafa diis si moom subvention bi ñu ngi jënd kilo gerte semence bi ñetti téeméer saak engrais bi ñu ngi koy jënd 18 750 yeneen yi waxuñu ko suñu fixé prix gerte nañu tenir compte si loolu mënuñu yaakaar lu ñu jaayoon gerte daaw ñu jaay ko ren ñu wax ba tey ci wàllu xibaar tamit li ñu ragal nag ay jafe-jafe am ci université yi syndicat autonome des travailleurs des universités et centres universitaires euh, bu Sénégal nag ñoom daal di wax ne nag dinañ jéglu bu baax a baax ci rentrée bi loolu li ñu bëgg nag moom mooy ñokk seen ay payor leeril ak Souleymane Gaye SGO syndicat autonome des travailleurs des universités et centres universitaires bu Sénégal ci micro Mame Diarra Da Silva. li ñuy ñoxtu nag dafa nekk mbir ma nga xam ni depuis président de la république bi mu annoncé nii revaloriser salaire yi am na. ci fonction publique ak ci agent de l'État yi ba mu ko annoncé ci mais mois de mai bi passé 2022 gis nañu ñu bare di ci yëngu waaye li ñu jaaxal mooy sunu ministre ba nga xam ni moom mooy sunu kilifa muy sunu ministre de tutelle ministre de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation muy Cheikh Oumar Anne moom génnoon na fan yee ca gannaaw daal di ñu ciy beddi ni personne yi personnel bi nekk ci université yi bokk ci mooy enseignement supérieur bokk ci waaye nag la nga xam ni moonu bett mooy dañu ñëw gis ni bërki démb am na benn not bu génn daal di jël jàngalekat yi nekk ci université daal di defaraat seen salaire daal di bàyyi personnel administratif technique et de service ba nga xam ni ñoom tamit ñoo ngi liggéey ci université yi taxaw ci ñu xam ni loolu nag dafa beddi ñenn ñi dugal ñamu ko neex loolu moom wax dëgg yàlla naqati nanu loolu metti nañu metti ba nga xam ni dafa nekk metti bu ñu war a dooleeku ci beneen mettit ndax am nañ fi benn décret ba nga xam ni ba ñu ko bindee defaraat ka yàgg na décret bi 2000 la woon révisé nañ ko def ci lépp Macky Sall ci boppam nga xam mooy président de la république waxoon bu amul incidence financière dana ko signé te décret bi amul benn incidence financière malheureusement signé wuñ ko bi fi ñu toll ñu ñu dawloo di ñu wiiri wiir ñaari point yii ma lim muy revalorisation salariale bi nga xam ne université ñëpp a ngi koy xaar te gisuñu lu ñu ci beddi nag bu ñu ko appliqué wul ci weer bii ñu nekk. décret bi tamit nga xam ne boobaak léegi ñoo ngi ciy topp di daw bu ñu ko signéwul ci weer bii di nekk université yi dinañ ko bloqué te bu boobaa du am. fukki simil ak juróom-ñett moo toftalu ci juróom-ñaar waxtu fi nga ci wàllu xibaar yéen lañ ci Assane Thioune ci wàllu xarala gi kàddu gi El Hadj Malick Ndiaye 7h30 ba daf di toog incha allah rabbi bu juróom-ñaar waxtu jotee lay doon ci xibaar ci kàllaama ko ci jàngeen jëf. jox xibaar yu gaaw te dëggu